conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyanto yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy ci lu doy waar ci réewum Sénégal nee na liggéeyante bi ma ngi mel tulleeg male ci biir entreprise yi ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci bërëbu liggéeyukaay yi dañuy liggéeyante bay liggéey sax seen patron yi am na si ay témoignages yoo xam ne doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waay natt daat na koy passé waaye nag ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu wi daat nañu indi ay leeral ci lan moo tax nekk ci entreprise yi bërëb liggéeyukaay yi maanaam di liggéeyante kenn ku nekk di tibb sa tànk morom yéen a kaay gi nee na kenn ku nekk ma ngay jéem a yóbbu sa morom ci ab sëriñ ngir ñu dàq ko ngir ñu fagaagal ko am na si sax ñoo xam ne dañuy dem bay liggéey seen patron yi yéen gi am na ci kuy nettali nee na baayam dañu ko liggéey ci bërëbu liggéeyukaayam mu mujj sax daal di tàggoo ak sagom journal bi nee na am na beneen xale bu jigéen boo xam ne nee na benn waay ab collègue am la ñëw fekk muy suy saafara ci ab bureau teguñu sax benn semaine financier daal di koy dàq ñi nga xam na ñooy sëriñu tariyaax yi daal nañu indi ay leeral ci mbir mi nee na ñu am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ngir liggéey seen collègue ngir ñu daal di leen dàq ci entreprise ba nee na sax am na si ñoo xam ne seeni patron la ñuy liggéeyee ma bàyyi mbir moomee wax ci yéen kaay gii di Vox Populi ak Le Témoin ak L'Observateur nee na ren gàmmu Tiwaawan du am ki nga xam ne nag muy xalif général des Tidianes dañuy sukkandiku ci njàngalem Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ngir nag daal di bañ a amal li nga xam ne mooy gàmmu gee coronavirus gee yéen kaay gii di gàmm gi jamono ji ñaari vitesse lay dawa Serigne Moustapha Sy mi nga xam ne moo mu jiite Moustarchidine yi moom nag daat nay wax ne gàmm gi daf koy amal ni mu ko doon amalee fi mu ko doon amalee ci champ de course Tijaan yi jamono ji mën nañoo wax ne dañoo xaajali ko ndax Tiwaawan ak njabootu njabootuk famille omarienne gi ñoom duñu gàmm waaye nag mu sar Moustarchidine yi ak famille Njigéen ak Medina Baye ñoom nee nañu danañu amal gàmm gi ci ni nga xam ne moom la ñu ko doon amalee yéen a kaay gii du gi nga xam ne ren du am ñi nga xam ne ñoo si gën a sonn nag gën seetee ñooy commerçant yi yi nga xam ne jot nañoo jënd seeni marchandise ba pare di waajal li nga xam ne mooy gàmmuk Tiwaawan gi yéen a kaay gii de Le Quotidien ak Les Échos nee na Tiwaawan ba léegi ne ma ngi confiné wu yéen a kaay gii di Source A mu xëy di ñu xamalaan ñu Serigne Moustapha Sy moom nee na dina gàmm te nag kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko fi bu ko fi kenn fàtte ndax Serigne Moustapha Sy moom nag ñaawlu na bu baax a baax a baax jumaa yeeg jàkk yi nga xamante ni daan nañ koy tëj sa Tiwaawan nee na bi lan moo tax ñu daal di koy tëj ñu ne ja Serigne Moustapha Sy ne am naa lu ma naqare lool loola ñenn ñi nga xamante ni ñooy fowee li nga xam ne mooy tarixa bi yéen kaay gii di a moom nag ñi nga xam ne ñooy waa APR di ay farandooma yekk nañ ko musiba ak mbelengaan journal bi nee na du mooyu na ko turbine yéen kaay maître Moussa Diop mi nga xam ne ay jamono mu fi jiite woon Dakar dem dikk daan na yëkkati ay kàddu ci mbiri Alioune Dembourou Sow daan nay wax ne procureur moo war a autosaisir maanaam jël dossier bi ñu càmbar ay mbiram ndax lu garaaw lu doy waar la wax la ñu jàpp Kër Massar Kër Massar yàmba jaa nga fay jàbbaa jonge yéen kaay gi di Walfadjri nee na alliance diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ak parti démocratique sénégalais bu ngeen gisee ñu lëngoo ci réew mi bu di na en tout cas li quotidien xëy di ñu xamal ni colonel douanier bii di Mohamed Sall mi ñu tuumaal ne moo rey doomam moom nag daan nañu koy jël yóbbu ko ci hôpital bu Caaroy bi nga xam ne fa la ñuy fajee ñi àndul ak seen xel yéenekaay gi di mi Rewmi Quotidien ci xëlim ak Assane Samb nee na coronavirus bi nga xam ne moo faagaagal adduna bi yëpp teewul ci senegal bëri na fi ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi jël gaal gi manaam di dem bitim réew journal bi nee na am na si ñenn ñoo xam ne seeni waajur complice la si nag waaye nag état bu Sénégal politique bi nga xam ne moom la war a def ngir ndaw ñi amul lenn loo xamante ni def na ko ci di sunu lamb ñu fekk fa Lac de Guiers numéro 2 moom nag yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy ga Mbengue nee na du nangu ñu koy tayle bekaay mbéy ci yéen kaay gi di sunu lamb nee na combat bi Balla Gaye 2 jël digganteem ak Bombardier yi combat la boo xam ne bu danger la si mooma yéen kaay gi di stade nee na match bi waroon dox diggante Sénégal ak Mauritanie coronavirus daan na koy annulé le pare jël victoire bi yéen kaay gi di Les Échos nee na nag en tout cas incohérence bu doy waar moo ci am am na ñu si waxul dëgg diggante fédération sénégalaise bu football ak ñi nga xam ne ñooy waa Mauritanie ndax